te làmb mooy suñu sport national te dañu am ministre de sport muy Matar Ba ma koy lancé message di ko xamal ne ko ñun ndaw ñi moom moo yor suñu kàddu te làmb gët ba mu war a am no joxuñu ko ko joxuñu ko ko parce que ñun sport bi jégaaniwuñu ko dafa loolu loo xamante ni si ñun ñoo ko moomal suñu bopp mais niñ ci war a doxe doxewuñ ci parce que souvent nga gis sax làmb euh, waykat yi ñu am na ñu def ak ñoom ñun mbëri kenn lijjanteegul suñuy mbir d'accord bu dee bu dee bu dee bu dee bu dee promoteur yi am na ñu def ak waa ñun mbëri yi nga xam dañuy ne ba bëgg a dee yaakaarum ci lenn du làmb ñu jël làmb jël ko tege ko nee comprendre nga jël ko tege ko nee ginnaaw bañ ñee dañ ñoo defaral national te tëjal ñu Iba Mar Diop Iba Mar Diop da doon daw te Demba Diop mi ngi doon am. lu tax arène national tey mënuñoo bàyyi mbër yi ah ñuy bëri ji foofu mbëri mag yi di fu bëre bu ñu amee bés bu mag comme li ñuy def Demba Diop te ñu ba Ibamaar gi muy daw ñu jël Ibamaar tëj ko lamb dama jàpp ne dañuy jóg pour rey ko te lamb dafa dee ba pare sax bu doon doxe ñaari tànk benn ci des comprendre ga kon war nañu mën a jàppale ci lamb comprendre ga xool nañ la ñuy defee làmb ba làmb dem suñu yaa ngi ay Mor Kanka yi ba lekkee avance jàmbur yàgg na ay Koña de Koña mi ngi Gàmbi di pare préparer combat kenn xamut ban dat lay bëre kenn xamu ko waaw. mais est que jotul mbëyu ndaw yi am métier. non ku ci ne am na métier moo jàpp mais làmb dafa nekk loo xamante ne si suñu deret la nekk dañ ko bëgg ci suñu xol moom la ñu am leneen lu ñu mën di jàpp suba ba ngoon te làmb bokk ci day mel ni loolu du dara ci ñun. mais nekkuñu ñoo xam ne dañuy yaafus toog defu defuñu dara déedéet ku ci ne am nga ci loo jàpp am nga ci loo yëngu tamit. ah fi làmb tollu boo déggee nit ñi di wax naan huis clos ci làmb en tant que mbër nooy déggee wax jooju. loolu loolu xam nga loolu ay wax la man tonnerre personnellement man dama xam ne loolu du lu mën a nekk loolu boo koy def moom da ngay jëflanteeg promoteur bi nga xamante ne si moom moo fay mbëri comprendre nga. mais loolu tey même bu ko mbër mi nangoo promoteur baa ngi ciy dee promoteur bi daf ciy gaañu tamit huit kilos. mais huis clos est-ce que mbër bi am na ci choix moom mi nga xamante ni dañ koy jox ak na ko bëreloo est moom am na ci choix. mooy li ma la moo tax man la promoteur bi moo ciy dee mais ñun li nga xamante ne si moom la ñu warloog promoteur bi mooy fay ñu temps nga fay ñu temps boobu ñu bëreel la yaa xam da ngay tëj stade bi yow donc nga ne ca yaa xam mais dama da ñun maanaam mënuñu dem sans promoteur bi kon yërmande dañ koy am suñ diggante ak promoteur bi comprendre nga parce que promoteur bu bëgg a teg làmb amoo sponsor comprendre nga ñu bëgg a jël làmb def ko huit kilo dafay metti tamit dafay metti trop nañu xoolaat làmb nañ lañ koy doxalee yaa ngi dégg encore une fois Matar Ba comme moom moo mooy suñu mooy suñu njiit moo moo moo walu wàllu bi comprendre nga mbër yëpp génn nañ ku ci mel ni Gris Bordeaux maa ngi koy nuyu ci côté bi mu côté bi mu féete booy ñaa suñu mag booy ñaa tafaatin xam nga suñu suñu suñu moom mooy suñu roi ndax moom la ñu am ci bawal comprendre nga ama ñoom ñëpp génn nañu ku ci ne génn nañ comprendre nga wax war nañu am yërmande ci ñun te xam ne làmb moom la ñu am ci la ñu yaakaar pour tëral ci suñu ay waajur ci la ñu yaakaar pour tëral suñu ay am di jàmm mais bu ñu jëlee làmb defal ñu ko nii dafay metti trop waaw loxo nag maanaam loxo dina jëm gémmiñ te yuuxu mën na jib fees ko foogewul comprendre nga président ñun ci ñu ko fal ci la ñu bokk kon dañu am baat ci moom ñaan ko mu may ñu am yermande ci ñun comprendre nga xoole ñu comme ni muy xoolee doomam xam ne tey maanaam ñu ngi souffrir parce que souffrir mënta weesu nga nekk ci benn benn benn benn benn domaine ne lii nga bëgg te loolu noonu mënta dem te bu ci dugalee loxo mu dem kon ñu ngi koy talal loxo dafa jot ñu ngi koy talal loxo mu dem leen ci làmb ji mu avancé sama kaddu nag bu may wax mbër yëpp laay waxal parce que coono bi du tonnerre rek mbër yëpp mbër boo seeti woon tey dafay maanaam cent yi bu xëyee du ko yor comprendre nga te làmb lañ yaakaar tamit